bi nga xamante ne mbas mi ñëw na dugg ci réew mi daf fee yàq lu bëree baree bëri association bi génn ay moyen yu bëree bari def ko lu toll ci fanweeri million ak lu topp ci première vague bi biñ demaatee ba deuxième vague bi am association bi daal di jël beneen façon xeex daal ne da koy xeex ci lokk ci localement côté bu ci nekk ci région yëpp def na ko ci Touba def na ko ci euh, Kaolack def na ko ci Dakar def na ko ci HLM def na ko ci région bi fi fu baree baree bari tey jii nag waa Thiaroye ñoo aye woon pour bay seen waar ci wàll wi ñi yëkkati woon lu mat dix mille masques ak mille gel hydroalcoolique doon ko séddale nit ñi waaye yemuñ ci séddale bi kese dañ koy séddale ba pare. sensibiliser waale nit ñi pour xeex bi gëna déllu ginnaw ginnaaw am déclaration yo xam nak wa assise ñu ko doon joytu ak di ñaxtu muy heure de travail yi nga xamante ni ñu ngi koy tecc suñu marché yi ta moy 18h heures ak couvre-feu bi lolu rey na économie marché yi ray bu méttee méttee méttee métti ba tax na ñuy talal loxo autorité yi pour ñu revoirat lolu parce que bañ koy def dañoo wax ne dañ koy def pour wàññi cas yi ak wàññi feebar bi waaye gis nañu boobu ba léegi wax dëgg yàlla yëf yi dafa gën a wulee ñaay loolu moo tax ñun ñu amoon ay xalaat pour bëgg autorité bi jël ay matuwaay ñun ñu defal suñu bopp geste barrière yi ñu bàyyi ñu ñuy liggéey temps plein bépp commerçant boo xam ne yaa ngi jënd a jaay nekk ci marché yi sa chiffre d'affaires wàññeeku na à cinquante pour cent pour mu leer ci sa bopp képp koo xam ne yaa ngi daan jënd ak jaay activité boo daan def waroon am téeméer tey jii mënatoo am juróom fukk loolu moo tax man la yàqu-yàqu yu bari na te chargé fi nekkoon na ngi fi la nga daan fay ci impôt moom ngay fay la nga daan fay ci droit moom ngay fay loolu moo tax man la yàqu-yàqu yu am na monsieur Diémé